Jérôme Bandiaki c'est un actionnaire du célèbre bar de Fougon Fougon Fougon c'est la cuisine en langue mancagne. Jérôme Bandiaki mankagne actionnaire la ci bar Fougon qui signifie la cuisine en langue mankagne c'est le cousin à Valérie Valkidjo Banyaki. Valérie Valkidjo Banyaki. C'est son cousin, Mom Jérôme Banyaki. Jérôme Banyaki, nak, mi andak Macky depuis 2011. Mom, kinga nga moy Jérôme Banyaki. ngeen won nañ leen photo bi ngeen jàpp loolu moom ak ñeneen la woon Jérôme avez bu mu ñëwee mu ma leen koy mën a mi ngi ak Charles Prera Amadou Gueye qui était des anciens gardes rapprochés du président Macky Sall depuis 2007 2007 en 2011. 2007, Charles Pereira, Amadou Gueye, Jérôme Banyaki et compagnie étaient des anciens gardes rapprochés du président Macky Sall depuis 2007. Ils ont été accusés par certains de leurs anciens collègues de vouloir se manifester devant la presse pour faire des réclamations. Donc, Charles Pereira, sommes pour ternir l'image de Macky Sall parce que bu mu faloo am ñum ci bàyyi am ñum ci bàyyiwul ci la liggéeyal Macky Sall mu ñëw traite le musa sa mu ne je ne serai jamais avec un groupe qui tente de tenir l'image du chef de l'État ñom ñu dem parti alliance de la république Mon taxaw na wax ni il a recruté beaucoup de jeunes qui sont devenus vigiles à l'aéroport chauffeur à la structure servir le Sénégal ay chauffeur des ASP ñooñu ñu bëri Jérôme Bandiaky indi na leen ci gouvernement bi jox leen gars yi ñu leen di garde ak ñu muy jël yóbbu leen aéroport ponkal la daal ponkal la ci réew mi ponkal la ci réew mi moom kii nga xam ne bokk na ci ñu rey ñi nga xam ne ñoom ñooy Didier ak Fulbert moom Jérôme Bandiaky mi ngi nii kii assassin la mi ngi dox nag mi ngi nii moom Jérôme Bandiaky mi ngi nii moom ak Macky mi ngi nii moom ak gis mi ngi nii moom gis ngeen ko Macky Sall la ngi nii mi ngi nii raykatu nit baa ngi nii donc euh, voilà ñu koy woowee sniper moom lañ koy woowee sniper Il a été aussi garde-corps de Racine Si. Il a été garde-corps de Adama Faye. Il a été garde-corps de Mimi Touré. Mom Jérôme Bandiaki aux premières élections législatives avec le régime de Macky Sall c'est lui qui était chargé d'acheter des véhicules de campagne pour Racine des Range Rovers. Il ko alal gu bari pour mu jënd ay Range Rover pour Racine si jox ko ay milli milli millions pour mu jënd ko ay Range Rover première élection législative bi nga xamni régime mu Macky Sall Jérôme Bandiaki. Jérôme Bandiaki, il est dans l'entourage du général Moussa Fall on l'appelle sniper c'est le chef du marron feu marron du feu Mon nervi Macky Sall Jérôme Bandiaki chef bi c'est ami intime et garde corps de la famille Faisal il fait partie des meurtriers et de tous les meurtres non illicités de la bande à Moussa Fall et à Macky Jérôme Bandjaki, le fantassin, assassin, dit sniper. Jérôme Bandjaki. Comme nous l'avons dit, a entraîné dañ ko ci ministère de l'Intérieur, ci ministère de l'Intérieur, intérieur lañ ko intégré muy jël ay nit raykatu nit yi leen dougal ministère de l'Intérieur ay ray raykatu nit di am ay salaire mom Jérôme bandiaki concentrez-vous gars Ma gëna mëna bloquer duma bloquer après dinaa leen bloquer concentrez-vous bay leen tontante yi waay bàyyi leen tontante nit mënu fi bind bind bind ba ma bàyyi limay wax yéen yéen lay waxal waxuma ñuy bind de man ma leen bàyyi noonu nit munu fe bind bind bind ba ma changer li wax nit munu fe bind bind bind ba ma vous li wax kon kay waxam pas amul sens bo len ko tontu do am sens am tout tuttu la bàyyi len nuy wax ma len bàyyi noonu ma bloquer vous dem sama yoon ah man lay man de waxal te man liiruma concentrez vous way, am tout ful la sen bopp man ko am fulla te kuma top di nga am fulla bu taxawon fi wax 40 ans du tax ma ma li wax concentrez vous ok Jérôme Bandiaki di sniper il était un immigré à Paris où il travaille comme agent de sécurité donc bu mu jógee am moment mu dëgër ci moom mu daw dem Paris nekk fa immigré gis ngeen photo bi nekk euh, nekk nekk sax ko Tour Eiffel. Tour Eiffel taxaw nonu yaakaar naa ni yeen ñep gis ko ci internet bi yeen ñep am ngeen ko Tour Eiffel donc mu dem Paris nek fa euh, agent sécurité liggéey fa comme agent de sécurité il est même parti avec un passeport diplomatique en France Macky Sall jox ko passeport diplomatique mu dem France Pour la fa immigré voilà après après quelques mois de galère il est revenu au Sénégal Jérôme Bandiaki Jérôme Bandiaki n'est jamais allé à la Légion étrangère, comme disent les autres. Jérôme Bandiaki. nous avons dit Jérôme Bandiaki dafa de ci légion étrangère musul dem légion étrangère Jérôme Bandiaki musu fa Il day fen des kàcc day duul légion étrangère France Moukou, On fait immigré la fa la laaj la fa pare fa nekk agent sécurité passeport diplomatique Macky Sall la ko joxoon mu dëgër këcc quelques mois de galère mu daw waxee tapet la kon kooku noonu di leen napp noonu di leen rey tapet bu mag la te dinaa leen wax ba wax leen fu mu dëkk loo leen ko deful ci yéen la tapet bu mag a ngi noonu amul fit France bu mu demee mu dëgg dafa daw waxaat donc Jérôme ki musul nekk légion étrangère jëm na nag def na test bi Il a fait le test. Il a fait le test. Mais on l'a écarté. Il était agent de sécurité dans un supermarché Leclerc à Paris. Où il percevait 2000 euros par mois. Il était agent de sécurité dans un supermarché Leclerc. Supermarché Leclerc à Paris où il percevait 2000 euros. Point. Les gens étrangers, de dem réussirul donc comme nous l'avons dit, il était quart du corps de Mimi Touré Jérôme Bandiaki donc Jérôme Bandiaki ci Bopom. bokk na ci ñi nga Moussa Fall sanguinaire ñuy jàpp sénégalais di rey di tëral di rendi di yóbbu dañu leen yóbbu ba tubaabu jallaaw dóor leen ba ñu sedd guy comme ni ma leen ko waxee woon ak demuñu woon pes demuñu dara ñu tëmbal leen ci ñoom ñoom ñaar ñëpp ñu tëmbal leen ci ay piscine naq leen ci bañ bañ bañ sedd guy ba mënatuñ nokki ñoom ñëpp gan dóor nañ dañ leen daggate daggate këppati wax naa leen ko këppati dañ leen dóor dóor yoo xam ni ñaar ñooñu dañ leen dóor bañu ñu sedd guy ñu dugal leen ci piscine naq leen ci tubaab génne leen dugal leen naq leen bañu ñu sedd guy guy guy guy guy guy ñu diri leen diri leen jël leen teg leen ci gaal dem ba digg géej tëmbal leen fa koor yooy noonu seey nii lañ leen rey dama ne DJ ak Fulbert ñoom Jérôme Bandiaky ñoo leen yanu ci ay oto yu ñuul kukk jël leen ñoom ñaar ñëpp bokkuñu fu ñu leen jëlee dugal leen ci oto yi yóbbu leen tubaabu jàllaaw wàcce leen fa solal leen yi kagul dugal leen te ñu junni ponkal dóor leen ba ñu takk leen dóor leen ba ñu sedd guy guy guy ñu tëmb leen ci piscine kër piscine tubaabu jàllaaw yooyu dugal leen ci naq naq naq ba seen yaram bi fees dell ak ndox mel ni ñu doon sangu piscine ñu génn leen dugal leen corps inerte ci oto yi dem jël gaal xam nga foofu foofu am na am na ay gaal. daw dem ba ci euh, lu li ngeen koy li ngeen koy waxee ci ginnaaw euh, euh, Cap Manuel ñu sànni leen fa ci ci biir ndox mi delluwaat raxas seen loxo dugg town gars yi jox leen salaire yi ñu woote gars yi ay eh, yee ok mat na faat nañ leen ñoom ñaar ñëpp loolu moo tax te ngeen de loolu moo tax ñu naan <laughs> Eh, Jérôme Bandiaki wala euh, Kenen ak Kenen, euh, nu mu ko waxee am na sax kenn koo eh, écoutez euh, le du ñu engagé dafa am maanaam intérim xanaa yow xanaa doo kaaw man dafa am ay service intérimaire fa ngay dem ñu jël la le Leclerc soxlaa day contacter ay ay ay maison intérimaire ay entreprise intérim pour démé foofu foofu lañ la jëlé buñ la jëlé yobula comme comme ñu ñuy dimbale ñi nga xam ne mus ñoo dugg ci avion wala mus ñu xamuñu kaaw parce que gis naa kenn ko naan oui Leclerc malheureusement musul embauché <laughs> xam nga dof dof yi moom dañoo bëri <laughs> xamuñu dara musuñu voyagé ay saretu mbaam lañ xam ay ay fas xam nga <laughs> bon yu baax la mais musuñu voyagé xamuñu dara ci àdduna waaw voilà ADECO yooyu yëpp ay maison intérimaire la yoo xam ni fa lañ lay jëlee après dem yóbbu la feneen waaw nañ nañ dimbale yenn dof yi rek yenn dof yi après ñu avancé ñun dañoo wër aduna ben système jaaxalatuñ dund nañ France dund nañ Amérique dund nañ dund nañ fu ne <laughs> voilà ok aca on avance ah ay agence la agence intérimaire on avance kay loolu damay jappalé ben dof rek pour raxas xel mi après seul mun seul seul da doon nalaw seul sël seul a on avance donc mom mi nga xamni moy Jérôme Bandiaky ñu jël leen ray leen tëmbal leen ci ndox mi ñi ñëw ñu ne gis nañ Fulbert ba ñu gisee Fulbert ñi jël ko yóbbu ko hôpital principal teg ko fa ba ñu ko yóbbee hôpital principal teg ko fa toog ba mu neex leen waxoon naa leen lépp ne filet de pêche yi ñoo ko créé jël seen filet de pêche yóbbu fële seen portable ñoom ñoo leen rey jël seen portable sànni jël seen kii tegay foofu noonu woo Madiambal Diagne Madiambal Diagne xam na lépp ni Jérôme Bandiaky xamee ni ñu reyee ñooñu parce que euh, bokk na ci dóor ñooñu ba ñuy moom Madiambal Diagne est au courant de tout bu leen di jël di leen dugal ci oto yi di leen yóbbu lépp Madiambal xam na lépp xam na nu ñu reyee ñoom Jérôme Bandiaky te tamit am na kenn euh, euh, Suzanne wax na ko Suzanne Suzanne wax na lépp Suzanne buñ ko ñëwé interroger ko dem lan la wax def na oui c'est déplorable mais dañ euh, oui c'est vrai dañ leena a dañ leena a quoi waaw parce que dañoo tak ci enquête yi Suzanne Camara mo taxaw wax lolu devant tout le monde mu ne c'est vrai mu assumé dañ leena ray kan mo leen ray Suzanne Camara taxawat ne devant la télé télé Sénégal ne dañ leena ray. kan mo leen ray ñu te kenn wax loowu ko de mu taxawaat ne waaw c'est parce que dañoo takk ci enquêtes yi kan moo leen rey kon kan la enquêtes yi génn mu déranger ko kan la gouvernement bi ñoom la enquêtes yi génn mu déranger leen donc moom Suzanne Camara wax na Sénégalais yëpp ne Macky Sall moo rey ñaar ñi enquêtes yi nga xam ne dañoo jàpp ne dañ cee takk la moo tax ñu rey leen loolu jeex na di Suzanne Camara bu APR taxaw ci télé na waaw c'est vrai dañ leen a rey ñu ne ko ah bon waaw ma tey ne dañ leen au lieu mu wax ne dañoo lap def ne dañ leen a rey ils ont été torturés et tués <laughs> allahu akbar ba léegi procureur autosaisirul Suzanne Camara moo taxaw devant des 17 millions de sénégalais ne dañ leen a rey dañ leen torturer waxul dañoo lap de dañ leen rey dañ leen torturer ba pare ne waaye c'est parce que dañoo takk ci enquête yi maanaam dossier bi génn ci gendarmerie bi ko leen rey mais loolu lool loolu rek bu taalul dëkk ba bu dee sénégalais génn ñu mooy ñu génn di ku bokk APR nekk ci mag i Sall procureur ba léegi autosaisirul taxaw ci télé ku ko waxoon dee ñu naan deenam deewul ku dugg ci ku dugg ci waañ bi nga ne tuuruma ñeex ma ku dugg ci waañ ba nga ne eh tuuruma ñeex ma de waañ ba rek lañ laajte. ñi jóge nañ fi Suzanne taxaw kamara taxaw ne dañ leen a rey ah, kon labuñu noo dañ leen a rey waa mais lu tax ñu rey leen c'est parce que dañoo takk ci enquête yi ku leen rey Moussa faal ku leen rey Macky Sall ku leen rey kii nga xam ni ñoom ñoo ñoo Jérôme Bandiaky ñii ñoo leen rey ak gangu Moussa Fall bi kenn mënu ko dindi le crime n'est jamais parfait ñoom wax nañ seen bopp Sénégal Sénégal jeex na wax nañ seen bopp devant tout le monde un militaire bu bu disparaître armée bi deful benn communiqué un gendarme boo xam ne mooy gérer les renseignements généraux de la gendarmerie bokk ci dee disparaître kenn bind ci benn communiqué allahu akbar dama ne gendarmerie nationale am seen élément bu disparaître bu bokk ci seen renseignements généraux ba suñu jonn yàlla tey bind ñu communiqué suñu armée nationale c'est militaire bu gérer ces renseignements généraux bu disparaître si vous avez une armée nationale vous ne laaj pas ma kan moo def quand kan moo génn ne dafa saisir, allah armée manque ben élément communiquer. communiquer, bu disparaître gendarmerie manque ben élément bu disparaître defuñu communiqué procureur bi vous communiquer, vous ne dafa vous ñu gis un corps inerte. bu ñu dóor ba mu sedd guy daggate ko morceau par morceau yóbbu ko hôpital procureur ne tekk ana ana por ana sa autosaisir am procureur ne tekk xanaa booy autosaisir di wër nit di autosaisir ba gis ko sama portable bii laay wër ma sama portable di woo di woo mënuma jot ba gis ko gis ko rek noppi xanaa booy wër di yuux an sama portable an sama portable ba gis portable di nga ne ay ah, mi ngi nii